coowal mbës mi ñu doon atte ni ki démb ca tribunal bu ndakaaru moom la ñu Sud xëy di nettali yéenekaay bi xëy ñuy wax naan ginnaaw bi ñu dooree ca bajonge Ousmane Sonko ak ay awakaam ko dalee ñaari atam gi nag naka démb woolu woon nañu leen ca chambre criminelle ngir atte leen waaye mbir mi nag dañ ko mujjee renvoyé d'office la ko waral mooy juge ba jàpp na ni la war a teew ci procès ba wépp teewut moo tax ñu jël dogal daal di yóbbu jamono ji ña ngay rëbbaloot daal di fas yéene kuppaat si dilewaat yëf yi ndax awakaay Ousmane Sonko am nañ juróom-ñetti fan ngi gën a jékki-jékkalaat seenub défense léegi ko yéene xëy duñ ca tegal naan jamono jiñ toll nag Ousmane Sonko léegi nag amatut lay ndax bu dee ci atteb démb gi nag ñoo ngi doon wax naan moom i lee jotub convoqué bi nag nar na ko jot ca jotin wa gën a rafetee te moom su dee na mu demee ci Sigicoor toog fa di dallu moo tax mu a ñàkk teew

ñuy xëy naan jamono ji nag procédure bi nga xamante ni det nañ koo enclenché ci bile procès nag ci ay wetam la daal nekk ndax bu dee procureur bi dafa daal di defub erreur démb kay atte yëf yi moom jàpp na ni nañ bëgg a saax-saaxee mbir mi nag du noonu ba tax ba ñu eggee ca mbir ma nag ko d'office ngir mën a may avocat yi ak Ousmane Sonko ñoom itam preuve yi nga xamante ne nee nañ Adji Sarr indi na koy avocat am ñu mën koo ceytu léefoo yéene kaay fa la desandi ne procureur général yàqamte saax-saaxee Ousmane Sonko ndax xam ni nag attekat bi du nangu Omar Maham Diallo ak i gaayam jël nañ yëf yi dàqandi ba ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru mai lii leen nag ndax code pénal article 246 ne audition am nag suñ ko defee ba mbir ma daal di franklaayu app wi nga xamante ne moom la war a may ngir ñaari camp mën a préparer seen défense lii leen nag respecté wuñu ko moo tax moom jël na mbir mi dàqandi juróom-ñetti fan ngir ñoom ñi leen ñu mën a waaj vox populi xëy ñoo wax li tax mu yóbbu ci Ousmane Sonko yoon naru caa génn a gàcce Ousmane Sonko nag mu ñu ne gàcceel ko mooy pexe ñenn ñi fare ci nguur gi nag moo nekk ci laas yéene kaay ñu ne nag ay faram doom nekk ca parti Pastef jamono ji nag ñoo ngay dëgëral ñoo ngay fépp ak mer ne ca sa gicoor ba mu nañ salfaañe ko boobu askan wa fa te léeg-léeg lépp nag ci caw loo xamante ne jàpp nañ la ay jaaxaan kese la ci yéene ba léegi nag attekat bi moom mi leen nag jël na waxtaan geeg xuloo gi nar a am ci bile procès daal koy dàqandi ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai tribune yéene moom jàpp na ne

seen teewaay ca tribunal ba ñu mbir mi nag laata sax ñu yëkkati kàddu la àttekat bi daal di jël dogal ne day dàq ni yëf yi ngir mën a may ñoom ñi leen nag ak Ousmane Sonko ñu gën a mën a waaj ngir jàkkaarloog Adji Raby Sarr ak Maître El Hadji Diouf ak i gaayam l'observateur moo xuus pitingal dugg wax ñu dossier bi lan ak lan lañ ci war a fekk waaye itam lan moo waral niki démb nag àttekat bi daal jël dogal renvoyé dossier bi waaye yéen ndax jot naa wax itam bañ ko soulevé ba léegi maanaam bañ ko yëkkatee di ca àddu loraange yi mu jotal mbir réew mi kenn xamul li mu toll bokk na ci ci altine gi ñu dëgmal la jote yàq ci ay bus Dakar dem dëkk kenn xamul na mu toll waaye itam ay ndaw yi jote ñàkk seen bakkan lii lépp moom ñuy xamal ne suñu dooroon ate bi ba mooy nag Dakar njaay jal Jóob ak sigi coor jax te ba mooy itam doom gi nekk ci biir réew mi dañ ko gën a motaxal enquête yéenekaay moom moo ngi ci enquête mbir mi ba léegi dugg ca biir tribunal lokkati li waral ñu daal di renvoyer dossier bi ndax procès bi ci audience spéciale lañ ko nar a amalee ñaar fukki fan ak juróom-ñett ginnaaw ndogal li nga xamante ne àttekat bi jël na ko renvoyé dossier bi ci week-end maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yi Ousmane Sonko xëy di xamal waa Walf Quotidien ne Ousmane Sonko ci waxtu ñu toll nag kenn mënu koo dem jëli ndax nekkul ci ordonnance de prise de corps maanaam teewaay par gi ñuy ñett ci moom ca waxtu ñu toll moom eggagu ca ba tax na nag su ko neexee wéeru ca Ziguinchor ga bu nekk di lëggéey lëggéeyam ca mairie bañ ko dénk ndénkaane gi ci biir réew mi alali jàmbur yàq marchandise jàmbur gi ñuy càcc bii suñuy làq ak itam sandarme ak policiers yi fees del ci biir réew mi li leen nag mooy conséquence procès yi nga xamante ñaari at moo ngi nii sonal la sénégalais yi laqal leen tànkal leen la tey moom yéen kay xëy ñoo wax naan coowal mbës mi nag li mu jot indil gàllankoor ci Sénégal bëri na ndax jàpp nañ ne sax ci Sénégal ba muy door Sénégal ba léegi daanaka mooy procès yi nga xamante ne moo ëpp li ñu yàq ci wàllum koom-koom alerte yéen kay xëy ñoo développe bilan ci yàqu-yàqu yi nga xamante ne moo am ci biir Ndakaaru ak Ziguinchor ñu ne bëri yi nga xamante ne yàqati nañ ko yàq tali yi ñu yàqati lakk ko ba mu ñuul kooku waaye itam ay bus daa dem dëkk yi nga xamante ne taal nañ ko te monte de bus yooyu de ñun askan wi ñoo ci xëy bés bu nekk nag ngir dem liggéeyi moo taxit yéenekaay bi xëy dippee ko manque d'incivisme ak it réewande gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci yenn ndaw ñi ne dañuy manifester jël alalu jàmbur yàqati ko te monte ne ñoo ñu leen ñu yàqal seen yoon nekkul ci bile mbir mbir moomu amee nag moo taxit duudu kaa moom mi ne mook Ousmane mu dëkk nag na ba fëtu ndax jàpp nañ ne xamante ne nekk ci biir réew mi nag ñu war a nekk ci tànku liggéeyal réew mi ñu nekk di yàqal réew mi dee ay nit yu bari nag tànkal leen sënal leen di leen woo ci fitna li leen nag baaxul ci sunuy koom-koom baaxul ci dëkk ga ñu dëkk te moom Doudou Ka nag li leen merloo na ko lool ndax jàpp na ne koo xamante ne da nga bëgg a liggéey réew mi bëgg koo yore yenn taxawaay yi waroo koo am ba di ko woote woote Ousmane ko defoon ca jamono ji muy wuyu yoon ca atum 2021 ak moo tax ñenn ñi fa de benn bokk yaakaar jàpp nañ ne ñaar fukk ak juróom ñaari nit yi jot a ñàkk seen bakkan ginnaaw ba ñu mi ba léegi léegi nag ñoom ñi lee te dinañ koy jël saamal ko Ousmane Sonko ne moom mi lee moo andi lii lépp ndax su woote wut woon kenn du génn bay manifester bàyyi nit di ci ñàkk seen bakkan keneen ku nekk ci loxo yi loon mooy taskatu xibaar bi di Mati Sarr ña moom mi lee nag le mandat yérekaay moom ñuy xëy li ñu xamal ne waa sûreté urbaine ñoo ko fekk këram daal koy dëjjati yóbbu ca commissariat ba ndax ne nañ moom dafa def attentat à de l'État waaye mooy liñ koy toppee leen pana yéenekaay xëy ñoo wax naan niki démb mooy itam waa Walfadjri amati nañ leen metti ndax seen xarit moom mi leen nag moo nga ñu téye ca garda wi ginnaaw bi nga xamante ne dafa def postu ci page facebook am dig ngaañi li nga xamante ne moo xew ci réew mi li leen nag ñu jàppee ne moom dafa woote ndaw yi ci fitna waaye itam ñàkk worma gi war a am ci magistrat moom mi leen da ko daal di def keneen ku def ba jamono ji nag moo ngi ciy loxo yoon mooy mbër mii di Ada Fass ni ko démb nag moo ngi woon ca tribunal bu Mbour ngir ñaari atte yu yëfam waaye moom nag jamono ji la koy yoot suñu ko xoolee mën na nekk ngëneel moom mbëru Fass bi ndax procureur gi nga xamante ne moo war a topp yëf yi jàpp na ni moom mi liñ koy tuumal des naa nekk dëgg dëgg ba tax ci fan yi di ñëw boo muyut moom Ada Fass mën naa génn ci kaso guñ ko jàppandee bés bi la jour yéeni kaay xëy ñëw wax kañ ne xibaar bi joxoo leen ko li wër mooy ginnaaw bañ ko tuumalee ci wàllum sàccum bëtoo moom Ada Fass jamono ji mën nañ wax ne Amadou Sall ma bamtawaat tur yi Amadou Sall moo nekk ci yoon yi dox ci ay jéegoo ngir moom i lee Ada Fass ñuy daal di koy tegg loxo ki loxoom teggee ko mu dëddu àdduna mooy xalif général bu Njaasaan yéeni kaay bi xëy koo tàggee ni ki démb nag ko dencee moo daal di doog jamono ji ca xilaafa gi xilaafay champion d'Europe jamono ji ña koy xëccoo nag nar nañ am coow ndax ni ki tey ci Stadium Manchester City moo fay dalal équipe bi di Real ngir ñoom ñaar ñu xam kan moo nar a fekk ji Inter de Milan mi nga xamante ni ni ki moom jot naa walide dikkeem ngir dem ca finalu Ligue des Champions ni ki ren Sadio Mané mi demoon Bayern ni ki daaw nag def fa at cote boo moyut moom daana fa jóge déwén ndax nancoo sunu gaynde national jamono ji nag a dëggal xibaar bi ne jamono juñ tollu kañ Sané Madio moom taxaw na temm ne Bayern Munich ka mu nekkee nag ña koy fay koppar gu takku nañ koy wéeree ca banque ba mu bañ a fubal titulaire leen neexu ko ba tax na moom gis-gisam yépp mooy fi ak déwén mbir ma su soppeekuwul nar na faa jógee dem naa ca lamb ja Bombardier a taakale Sa Thiès ak i ndax jàpp nañ ñoom ñii combat bi waroon dox seen diggante nag ñoom ñoo ca daw ndax promoteur seet si woon na ko ngir moom mi ne Bombardier mën a bëreeg delloo avance wa toog di xaar beneen <laughs> waa tamit Bombardier mi lu mu bëgg daan mag daan raq